waaw ñun nag ñoo ngi bàyyeekoo tubaa Touba Veneto ñëw fi ànd ak bis bi nga xam ne kii ko woote nga xam ne kenn la si ñun muy sëñ Saliou Seck nga xam ne ñun ak ñoom benn lañ. moo tax bisam bi ñun ñëpp ñu àndandoo boo gisee ñaari kaar lañ benn kaar bi mu ngi jóge tubaa Veneto benn bi Touba Treviso ñun ñëpp ñu bokk jóge Veneto ñu ànd si bisub sëñ Saliou Seck bi fas yéene koo sargal ànd ak moom. fas yéene ko jàppale si bésam bi xam ne du bésub sëñ Saliou Seck bés bi ñun suñu bés la. jërëjëf bés bu sëñ Saliou Seck yëpp la waaye bésu murit yëpp ngay ñëw tey si pale bi pale solo bi di pale boo xam ne képp kuy jullit képp kuy taalibe miin nga ko le huit bii rek lañ fiy tase ak sëñ Maam Mor ngeen ñëw fi tey ànd lan mooy seen ngeen bëgg ak seen mbébét ak seen ñaan si askan wi ak si bis bi. waaw suñu mbébét ak suñu ñaan si bis bi rek. ñaan yàlla rek lépp luñ fi de jëf ci ak jaamu yàlla wala lépp loo xam ne ñoo ngi ko fi tab suuru baax rek yàlla na ko yàlla def te fii ñu nekk tim yàlla na yàlla def muy bokk si bis yi nga xam ne bis yu sëriñ bis yi gënal sëriñ Tuubaa mu nekk ci bis yi ndax bis boo xam ne dafay boole jullit yëpp xàjjilut képp kuy wax ashadu an laa ilaaha illallaah rek xamal nang si bis bi ki woote bis bi nag wax dëgg yàlla de kenn si ñun muy sëriñ Saliou Seck kon wax dëgg yàlla mënuñoo wax ci moom sax ndax ñun ak moom benn lañ jërëgeen jëf yal na yàlla fay si barke Serigne Touba bu am beneen mbooloo mu ñëw léegi di dugg ci doon ay gan doon ay jëwrin bàyyi ko si dëkk yu sori ñëw si bu si sëñ wu Seck bi kon ngeen ñëw nii أكرم هاد وكل من لخبره nun ñii buñ ko woo dañuy wuy si lu nekk mu nekk ceeg nun duñ njëkk wàcc ci réew mi dogal na sama kër la njëkk a nekk tubaarkàlla ñun la njëkk a jàngal màggal Tuuba comme li mu doon ci nun sëñ Tuubaa nag la woo sëñ Tuubaa ko wuy si teg loo gis sëñ Tuubaa la waaye alhamdulilah du kenn kóllëre fukki at ak juróom benn du benn fan du ñaari fan dëgg la te lu bëgg sëñ Tuubaa rek defal ma sëñ Tuubaa dara lu jot benn murit dagg benn seconde. dañ bëgg sëñ Tuubaa ak déedéet lépp liggéey bi sëñ Tuubaa la dëgg la sëñ Tuubaa mel noonu saa boo ko liggéeyalee bu la fayee rek tubaarkal mu fay la lool jërëjëf sëriñ Tuubaa jërëjëf nga xam ne mooy suñu lépp di suñu wëllëre rek di suñu bokk ci ñun ñu xam ne bis bii mooy suñu bis kon nag euh, ñi ngi sant bu baax Seexul Xadiim bi mu ñu mayee tawféex ba mañ koo fekk di ñun ñëpp rek yàlla nañ bokk euh, am ci ngërëmal sëñ bi loolu rek lañ ciy sàkk ñi ngi tuub bu wér wasalaamaaleykum wa rahmatullah Saliou Al Seck ci xeb ko nag day ñëw si ñun te dañ ko bëgg si suñu xol nag wax dëgg yàlla moom ñu nekk tari c'est que taalibi Serigne Touba waaw kontaan nañ tam man maay soxna Njéeme Caam bëgg fàllu bëgg Fallou nga def guddi sëñ Fallou. ak saa dafa def vraiment. ak saa ñëpp daal dafa fekk si ay ay at. tey jii nga ñëw si bis si Saalum xam nga ba koy def bu ñu mel nii ba bareegul woon de. déedéet ba ngay tànn sëñ sëñ Fallou. Mhm. ndax gisoon nga ci dara. déedéet ren mooy 24eem année bi. ren mooy 24eem année. Mhm. ma yàgg caa ñëw bi si ñoom. ak saa alaaji naan baabu yàlla. wallaay amiin ay waay amiin ay waay amiin amiin kay xàmmee naa amiin. bisu mel nii damay wéet ndax ku mel ni alaaji naan daa ànd ak man si lu mel nii li ma dund mooy man dama ñëw ngir jëmbi sëriñ Touba bëgg lépp nag saf si sëriñ Touba rek ak sëñ Fallou sama sëriñ ba ñëw ngir Saliou sekk nga xam ne day sunu doom di sunu lépp ñëwit ngir sëriñ Touba bi mu koy wooteel ñëwit ngir représenté daayira Soxna Jaara Touba Brescia nga xam ne man maa nekk si njiit li ñu fas yéene ñëwal daayira Soxna Jaara fas yéene taxaw si bi rek saf sàpp si Serigne Touba soxla wuñu leen lu dul saf rek si Serigne Touba ndax Serigne Touba dong ñu ñor. li mais soxna Ndiémé li mu saf ko xamante ko xam xanaa. dama dama ko dund ndax dama bëgg sëñ sëñ sëñ Bamba dama ko jàllale waaye doom ji sëñ Fallou rek man mooy sama lépp Mbàkke Bàll la man lu man nit di woo Serigne Touba rek yaa ma moom. ku la nax ci sëñ Fallou. ku ma nax ci sëñ Fallou yaa moom yaa moom. ku la ku lay ñaan ci sëñ Fallou. ku ñaan ci sëñ Fallou am nga lépp. kon ñu ngi lay ñaan ci barke sëñ Fallou nga ñaanal ñu télé bii wala télé ñuy liggéey muy AC Diaspora Vision ak Africa ak yeneen télévision yi nga xam ne ay ndaw koy def nga ñaanal ñu si barke sëñ Fallou télé yooyu yàlla nañ jëm ci kanam. bu fekkee am naa dara si sëñ Fallou comme ma ko sëñ Jiile waxe woon ni ma yow doom nga si sëñ Fallou yow rakk nga si ñun yàlla na leen sëñ Fallou yiiteel yéen ñi fi nekk ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu leen di séen comme nañuy séenee sooroon ba sa Touba. yàlla nañ leen di seen comme na mu tudde woon maam Soror ba mu tudde maam Cheikh la Fall fu waaye ne gis ka yàlla na leen seen yéen ñëpp foofu ngeen mel na Soror ku leen da nga tudd koo xam ne kenn la si man sëñ ma wax la lu ma sëñ Jili di sëñ Jili defal damaa ñëw am liggéey bu métti bu sori ma ñëw ba si moom ni ko sëñ Jili liggéey bi ma am du liggéey sëriñ ji liggéey yu géwal mu ne ma lu tax ma ne ko dafa sori te diis mu ne ma bu subaa di nga am fu jege ma xëy suba ñu ma sama buntu kër jox ma liggéey jërëjëf sëñ Fallou asalaamaaleykum sëñ bi nangeen ngeen def kon ñu ngi jégalu télévision yi nekk fii di télévision ay ndaw nekk fii si Italie ñu ñëw doon taagaan si yéen ay kàddu di laaj tur yi naka la ak fan ngeen jóge ak nan ngeen gisee bis bi. Euh, man Modou sàll laa tudd. Modou Sall. waaw dëkk euh, province su Padova fu ñu wax Borgorico ci Camposampiero. waaw bis bi nag comme dañ ko jagleel sama xarit sama rak sama doomu ndey sama lépp muy Mamadou Kane mi mm-hmm. gannaaw yàlla diñu ci indi ci la ak guddi gi comme guddi Serigne Khadim la mm-hmm. te mooy suñ yaakaar tey ak ëllëg ah gannaaw yàlla lu ñu fi indi loolu la mm-hmm. ah, di ko rafet rafetlu nag ak it nag sëñ Saliou sekk mi nga xamante ne bii mooy waral mbir mi moo ko sabab bi ci doomu aadama yi jaral na ko ni it nag wax dëgg yàlla am loolu daal moo ñu fi indi yàlla ak yonentam ak seexul xaddim ak guddi gi. jërë ngeen jëf ñi leen feen di ñoo jërë ñoo jërë tax nit déplacé wu seen déplacé wu bi ngeen déplacé wu li ci bëgg ak li ngeen ci yaakaar yal na leen suñu borom fay lu kawe seen njot jëre ngeen jëf si seen déplacement. ak Sarr mi suñu collègue di suñu xarit. Mhm. di suñu mhm. ñu bokk lépp nag. bokk sëñ bi. Mhm. nit ñu baax lañu. Ah, ay taalibe seexul xaddim lañ ah, yàlla daal la ñu gëm ak yonent bi seexul xaddim. jërë ngeen jëf jërëjëf. sëñ bi am nga kàddu yoo si. waaw maa ngi sant rek di sant grand bi yal na yàlla guddal fanam ñu yàgg ànd ci barke Xaadim Rasuul jërëjëf. jërëjëf yal na sëñ Tuubaa fay ñëpp. dafa am teranga ju ma jóge ci alaaji Cheikh Faye gouverneur nee na sëñ Tuubaa gànjaram mooy alxuraan mooy médecin mooy lépp nee na kaamil laata ñu la ko jox dañ ko bëgg jàng ko ay yoon ñaanal a kawe waa nañ ko tekki na gën a ñàkk solo xeeb nañ ko maa def ambassadeur waaw Baye Cheikh maa ngi yow àndoon ah ma maa def dañ maa def ambassadeur Veneto gépp lan boole daje décoré ma ni ma ambassadeur u Veneto nga da nga def di fi dindi te waxuñu ko rek ci lépp luy nos wala nu koy nocc di leen ma waxtaan ceeg man kon suñ taa fay leen ci mbàkke xasida ndax bor bi nga ñu lebal xam nañu ne lii première édition la waaye mënuñu koo fay wallaay ndeysaan maa ngi ànd ak mboolam jëwriñ yëpp sëñ Cheikh ak sëñ Modou Mahfous Fall sëñ Mor sëñ Mamadou Soñaan sëñ Ablaye ñoom ñëpp dikk ak mboolem waa kuréel gi kenn manqué wut ak tuut tànk yi ñoom ñëpp dikk nañ nee nañ bis bi seen bisa ñoo ko yow ñoo ko bokk mm-hmm. ñi ngi ñaan yàlla suñ borom tàmbali bi tàmbali bi mm-hmm. mel ne lem mm-hmm. waaye bu dee lu see mu mel ne lem bu njaxaseeg suukar te lépp suñu borom nangu ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa bég nañ ci yow baax a baax a baax man daal li may wax bég nañ ci yow mooy maa ngi feddali sama kóllëre ak yéen di ko di ko di sëñ mu téel na ko ndax man damaa ragal fecc kóllëre te télévision. colonial la njëkk a jàng màggal Tuubaa du ma ko fàtte mukk. wallaahi mm-hmm. archive yi may bind. Mm-hmm. dama koo bind. Mm-hmm. ndax man fu ma jaar rek maa ngi bind. ëllëg day ñëw. bind day des. maa ngi koy bind. waaye colonial ne ci kaw fa la njëkk a jàng màggalu Tuubaa. coloré gu fukk at ak juróom-benn wax naa ko sànq. waaw du benn fan ñaari fan. déedéet téye naa ko sama fukki loxo. barkeb Cheikh Abdoul Ahad nuy jàpp nañ ko. te it lii ngeen def nii. Mhm. kawe na ci man lool sax. Mhm. ndax lu ma daan ñëw rek. Mhm. fay ngeen ma ba wis ma. déedéet ba lebal ma ndax déedéet xam nga kenn ku jóg. Eh, kenn ku jóg moo gën a yomb mbooloo mu jóg. kenn ku jóg. moo gën a yomb mbooloo mu jóg. waaw waaye mbooloo ma ñëpp waroon na ñëw tey ay kaar lañu waroon a ñëw. kenn ku ci nekk bàyyi ngay yitte ñëw. man benn yitte dong laay bàyyi. <laughs> waaw kon lu ma ñëwoon rek. dëgg fay ngeen ma ba wis ma. léegi damay sàkku ñaan. lii doon ak laxasaay ci man. amiin boo xam du fecc ku mukk. amiin ba may dégg sëñ Touba. ci barke Cheikhul Khadim bu ñu gis suñu bopp mukk. amiin mukk mukk mukk mukk. amiin ci barke sëñ Touba. amiin loolu laay ngeen. amiin يسر لهم به لشتى عسرا فكل ما يسرت تيسرا واجعل المسير يسا جوف الفرا للورى مصر المعارير بركب سرين توبا ربي بما يزرعه الحزان خاف جار بجاه Rabbi la do ما أخذنا الخلق من دلائل بجاه عبد yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen